نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى kàddu yi am na solo soxna Aysatu Pend liñ ñi cëral ci minute maanaaka jeex na ñu tëjee ko rek ak dernière question bi parce que gis nañ ci TikTok bi temps yi dese yi bëri te am na ay sorties yi ñiy jibal naan tiktok bi xale yi nañ ko moytu wala it ku amul gàllaaj bul sànjaafu vidéo yi ndaxte tiktok bi instant bi doy na waar. waa tiktok bi tamit loolu dañ ko ciy wax parce que bu ñu demee ba benn waxtu xale yi dañoo ñeme bët xale yi dañu bëgg média xale yi dañoo bëgg fës te fës dafa am mu àndal fës dafa ànd ak defaru parce que ñun ñii ngay gis ni tëbuñu rek toog ñuy jël caméra toog dëgg la. maa ngi sama kër mais àdduna bi yëpp dañ may seetaan amul benn exception bala ngaa jóg na ngay waajal sa bopp nit foo mënta nekk waajalal sa bopp bala ñu laa waajal na fekk ne rek yàlla moo nekk ci yow ca la ngay def na fekk ne rek mu ne fekk fuñ la fuñ la fekk bu rus wala fépp fu la dee fekk rek bu la bettee say mbokk duñu am gàcce mais TikTok bi nit ñi dañu bëgg célèbre mais xamuñu nu ñuy def nit boo xëyee say sarax war na génn nit boo xëyee war nga julli nit boo xëyee war nga musu ci bët bu aay ak làmmiñ bu aay parce que mbay sàppar sàppar bët ki boo njaay oto la doon ñaan soxna muumi am na oto oto boobu moo ko yóbbu yamal xiyaam kon tey loolu message bu clair la ah, parce que dañuy gis euh, TikTok mu nekk jigéen wala mu nekk góor surtout sama moromu jigéen ñi dañuy sañse mel nu leen neex TikTok plus de dix mille vues entre autres ñoom ndam lañ koy jàppee alors que boobu ñoom ñu ngi exposé wala sax cat wala làmmiñ bët gu bon ak lépp mu ngi leen di xaar pour faagaagal leen. waaw dama koy jëkkee ci làmmiñ ak bët loolu dama koy jëkkee ci ah, mbirum Ablaye Diop xaas ak Famay parce que loolu lu ma toogoon fii wax la yéen jëloon ngeen ma ci loolu neewoon naa ñu ngi jàpp doomu jàmbur di ko sam di ko tong-tong ku xam dara ku xamul dara yëpp ñu ngi xool xale bi ñu futti ko ba mu set teg ko. diw ko ba mu tooy tegal leen ko ku nekk jël sa parce que waruñ tey lu ñu mënta def nit ku nekk xam nga ne sa capacité xëy na même bu doon Ablaye Diop xaas am na yéene faj ko xam ne ni mënul faj kooku parce que tey dem nañ ba benn moment Ablaye Diop xaas bu doon mën na faj rek bu demee Amérique an am pagaay ka yooyu ñaata nga fa gis France boo fa demee ñaata ka faambay yi nga fay gis ñoo xam ne obésité moo leen jàpp loolu yemul dara ak mbirum mbirum sëriñ bu doon loolu la kon bu fa demee mën a faj rek ay ca avion yaa ngi noonu bu ca demee dana faj ba doyal bu dee mën na ko mais ba mu génnee ñu naan Ablaye Diop xaas ñuy reporter naan ku mën na def ku mënul na toog ñun mën nañu mais lu ñu mënul te ñu xam ne lii du garabu garabu tubaab dañ koy teg nee ñu jël ko tey bu doon am amul négligence yàlla dina rey de mais am na fu feebar di toll yaa ngi dégg excès de graisse boobu day rey nit. yàlla nag ray bindul ci fanweer rey ci fukk juróom mais am na fi toogee ba sonn yaa ngi dégg tey bu newoon da ngaa jabet bu sa suukar eggee temps boo lekkee lii dee boo lekkee dee parce que da ngaa xaru am na fi nit di toll tam ñu war ko jàppale comme ni may wax ne mbirum faambay ñu war ko jàppale dimbali ko ñii di takki or ñii di puukare ñii di tiitaru Sénégal njaay buñ ci jëloon fukk yu mat wala ñaar rek yoo xam ne am na alal joo xam ne du jeex mën nañ yóbbu faambay bu faju tey sénégalais yi dafa waroon nekk seen gàcce ak seen seen seen remords bu ñu am bu ñu toogee ñoom kese dugg ruq mën a kan toog seen biir néeg rek war nañu am gàcce parce que ñu bëri waroon nañ ko dimbali tey bu ñu defoon tey ci ñu yor dëgg ku nekk un million un million def ko xëy na yàlla dina ko taxaw sax bu deyee ñu ne wasu nañ ci àq mais xale bi lañ bàyyi ci benn ruq ñi porté volontaire bës dañ koy utee ñëw jàpp say diw diw garab yaa nga fay yow su ma la ko diwoon léegi nga xam diw la ba say bakkan doo mën a noyyi ñu jàpp xale bi futti ko ba mu set xëy na responsabilité ay parents da cee bokk parce que am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee wax la leen rek ñoom seen intérêt personnel lañ ciy seet parce que doo ñëw tamit lii mën naa ko te mu leen ne man su ma la tey mën naa yenn fauteuil bii te mënuma ko man intérieurement dama xam ne mënuma ko dama koy wax mais xam naa ne fauteuil bi mënuma koo yenu mais bëgg ñi nit gis ma nombre de vues bi vidéo yu boobu am tey ne waroon nañ tey toogaat démentir ne man defu ma nii mais ñenn ñi Sénégal far féete moo leen sonal parce que man su ma utee sama benn clan wut sama 40 personne wala 50 yoo xam ne ñoom ñooy nekk sama ginnaaw ku jëflanteeg man rek ñuy nekk ci internet bi di la tontu te loolu moo xew léegi ci internet bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy nekk benn sëriñ bi nga xam ne day am nit ñu topp seen ginnaaw bala ngaa jot ci ñoom rek sonn. tey boo leen waxee benn baat fukk ñooy wala ñaar fukk ñooy nekk ci ci commentaire yi di la saaga te da ngay xam ne ñii noonu la ñuy def ci keneen ak keneen ku leen tudd. bu ñu jógee benn moment Ndoye baan jóg di di di révéler loo xam ne xëy na lu mu xam la mooy nit lu mu xam rek lay wax ak lu mu mu gis loolu la nit du wax lu mu xamul. te man Ndoye ni ma ko gis depuis muy topp liggéeyam ma di ko topp gis naa ne lu mu wax rek lu mu topp la. du wax lu mu leerul looloo tax ñu koy tooñe inspecteur Ndoye baan te nekk na koo xamante ni sama collège la ci rajo bi ma nekkoon daf ko jege dafa xam Ndoye baan donc gis naa ne lu mu wax rek da koy topp da koy topp ba mu jeex day topp kaa boobu ba mu jeex kon ba mu taxawee wax lii ci Ablaye Diop xaas mu dem am coow aw polémique foog naa am na dëgg ci kanamu ñëpp. mais Diop Khass moomu tey est-ce que nekkutoon ni da doon waslu àq parce que moom ci kàddoom ba mu defee sorti nee na Fambaye euh, Wally Seck moo ko woo moo woo kii nii Abdoulaye Diop Khass ne ndaw si am na yaakaar ci moom. waaw loolu façon de def la rek pour am bës man su ma ko defoon tey bu ma waali woowoon man damay volontaire ne mën naa ko parce que yi mu yor ñun ñëpp moom la ñu yor yor nañ garab comme moom. mais dara même bu dee Waly woo na ko bu ko bëggoon faj ñun faj nañ téeméeri nit yoo xam ne ci biir ne kenn yëgul mais duma la futti woo film ñi nga xam ne caméraman yëpp woo Bachir woo keneen ak keneen woo Sans Limites woo sit yëpp ñu toog ñu reprendre vidéo boobu ci internet bi yëpp ñu di la filmer nit boo koy faj da koy faj ci sutura dafa am bët yoo xam ne fu mu tegu mu yàqu am na bët yoo xam ne ci kuñ tegu seen bët dina traverse fa mu taxaw te ñun xam nañ li ñuy wax donc waruñ ko woon futti buñ koy faj kenn waru ci woon teg bët li ci yàlla def mu def ko am na yow boo ko ndamoo tiitaroo ko naan kum mën na def ku mënul na def loolu boo ko xasee def même yàlla nee na da ngay wàccee sa bopp ma yéegal la ca kaw waaye nga bëgg yéegal sa bopp kaw yàlla rek ko yeewee naa la wàccee suuf même bu ci ndamo waroon am doom boo bëggee yàlla kawel la loo def mu nangu ko bul tëgg sa dënn boo koy def melal ni ku ko mënul wala ku ko a def boo ko defee yàlla da lay da lay mottali loxoom ca la nga xam ne yaa ngi ko taxawal di ko def parce que ñun kenn ci ñun yàlla ñëwul di la opérer de ay nit ñoo lay opérer boo feebaree waaye yàlla def ciy dugal loxoom ca kaw la ngay def mu ne nga am actualité la ngay def lépp loo def ci suñu borom da koy barkeel te pourtant yow nit yaa koy def mais yàlla da ciy teg loxoom loola tax chaque jour sumay may ñaanal ni damaan ko yàlla na yàlla teg ci yow loxo te lépp looy def yàlla teg ci loxoom loxol suñu boroom lu mu dugg rek loolu nekk lu baax. kon femme bi tey ba tey est-ce que du sénégalais yi aussi dañ ko seetaan. vraiment dañ koo seetaan dañ ko seetaan bu dee wax dëgg rek. président Macky Sall waroon na ko mën jàppale nekk na loo xamante ni tey man lu ma nakkari la xëy na mënu ko faj am na ñeneen ta mu naqari mën mën mënuñ koo faj mais sénégalais tey dëjëm bii ñu defoon ci ay millions moo leen gënaloon pour xam ne. nit ñi dañ leen di gis ñuy def am na ñoo xam ne voyement moo leen dem grand théâtre taxaw baatare cinquante million moo leen gënal man ma dugg ci sama ruq wala tey nit feebar ñu fekk ko biir këram buñ koy jox xaalis sax bëgg nañ ko filmer dugal ko ci internet bi nit ñi gis parce que Sénégal fii am na ñoo xam ñu ngi dimbali ay nit bugguñu sax ku leen wax xamuñ leen te ñu ngi toog seen ruq de yor lu dul jeex nekk ay milliardaire mais ñu ngi dimbali te bugguñu kenn xam leen kon donc def nañ lu ñaaw ku ci nekk am ga ci sa part de responsabilité ñu ndimbal yor xaalis bu dul jeex xaalis mu ne fii lay jëriñ ci àdduna waaye àllaaxira du jëriñ borom dara boo bëggee defar sa àllaaxira sa alal ji nga yor na ci liggéey liggéeyal sa bopp kenn liggéey man li may bañ mooy liggéeyal yàlla yàlla kenn mënu koo liggéeyal parce que la yàlla la ñuy am yàllaa ñu koy jox kon loo ko defal dara nit day jaamu yàlla pour yàlla am am ci yàlla dara mais yow yàlla li naan damay liggéeyal yàlla kenn liggéeyalul yàlla sa bopp ngay liggéey ndax jëf jël la lu waay liggéey yaa ko moom te sa biir bàmmeel lépp loo liggéey yaa ko fekk sa jëf la mu ngi mel ni compte bancaire booy denc donc loo liggéey fii ci lu baax sunu borom na la ko fay loo liggéey ci lu bon sunu borom daf la koy delloo kon donc yàlla kenn defalu ko dara sunu bopp la ñuy defal dañuy liggéey pour am sunu compte dara mais defaluñu yàlla dara kon ku am sa lu baax fexeel nga def ca lu baax moo gën tiitar beeg puukare beeg lu kenn xamul amul sens tey at Fambaye ñu bëri tey dinañ toog seen ruq ne su ma xamoon fekk si trop tard parce que buñ ko jàppale woon à temps dimbali ko à temps koo xam ne couche sax bi nga bi ngay couche woon daf lay jafe yaa ngi dégg loolu dafa métti parce que nekk boo nattee feebar bopp rek métti la waxuma la dara wala nga béy li nga xam ne li ko dal dafa métti feebar bu métti la te loolu ku nekk nit rek di nga ko naqalu bu doon loolu la boo juree doom nga doom dagg sa sa sa butit boo gisee doomu jàmbur feebar rek da koy nat sa sa doom di nga xam ne li dal ay waajuram metti na amuñu doole te benn moment tamit nit bu amul bu yaakaaram kii xawee doy waar loo ko wax rek danaan dëgg la loolu moo leen yóbbee xëy na puus seen ba ñu jël loxoy faambay teg ko àdduna bi yëpp di ko filmer ñu di ko seetaan te image bu dul jël bu dul dañ ilaa yow mi dini la mënoon nañ ko génnee ni image ñu wane nu mu toll mais pas ñu futti ko teg ko loolu yàlla rek taxul loolu wut alal la wutee nit alal la te yàlla rek du yàllay kese parce que wax yi doon commentaire ci commentaire ci vidéo nga xam ne lii yàllay kese nekku ci même bu doon am na yéenay faj ko tam wanewul ne yàllay kese ci nekk mënoon na ko dugal ci ruq bu tëlee kenn du ko na ci dara parce que faj mu wér ci loxol yàlla la nekk mu ne ku nekk am na lu la yàlla dénk xëy na am na lu ko yàlla dénk duñ ko ko bañal mais bii mënoon na ko bañ def publiquement ni àdduna bi yëpp di ko seetaan. d'accord euh, soxna Aïssatou Penda su ma dégloo say kàddu dafa mel ni seen biir ci seen liggéey dafa am ay gang ku ci nekk aussi am say arsenal ci YouTube bi ñu lay commentéeral ñu lay waxal lu baax. ak aussi ñu lay saagaal. Mm-hmm. waaw mooy li may wax rek am na ñoo xam ne dañu yor seen i gang dañu mel ni ku yor daayira yor seen téeméeri ni wala seen cinquante personnes xam nga lan la dignité moo bëreetul Sénégal tey am na ñoo xam ne tey dañu nekk ci internet bi xoolal boo ne ñoxor njaay ma tudd la ñu saaga ay ndey la taxaw di dagg moo tax nee naa leen bu ñu bàyyiwul loolu dee dee gu la bett wala am accident bu la bett du jóg ci Sénégal wala feebar feebar boo dul mën a fajoo parce que képp koo xam ne tudd na sa nit rek wala wax na naka sudul noonu rek parce que naka sudul noonu tam amu fi de wax wax dëgg moo fi nekk man sama sama côté man parce que kenn ci ñoom amul loo xam ne aw ma ko sama liggéey moo may dundal cogguma kenn neexaluma kenn pour mu may ma dërëm donc damay wax pour wax dëgg fii boo gisee nit def ko rek parce que dafa am sëriñ yoo xam ne dañuy bit jël ay nit engager leen ku leen wax dara dañuy defante ci suuf mais bu dee nit bët ak bët rek yow xam nga ne nit amul sañ-sañ jàkkaarloog yow di la saaga ndey man mii wax ak yow nit amul sañ-sañ jàkkaarloog man di ma saaga ndey te xam ne du teere fu baax waaye da ngay làqatu sa ginnaaw écritel sa téléphone di dagg ay saaga ndey di di saaga ku la neex di saaga sëriñ wala nga toog ci internet bi toog ci vidéo di saaga nit di saaga sëriñ di saaga Serigne Touba di saaga Alaaji Malick di saaga Cheikh Ibrahim Niass di saaga ku nekk ci Sénégal te yow boo ko defee ci alku damay gis ne Sénégal dafa bëri nit ñi alku te deewaguñ loolu moo waral ak manque de dignité dix mille francs bula la kenn di jox wala fukki junni boo yaakaar ci moom mu teg la ci ginnaaw yow sa yaay liggéeyul dara parce que Sénégal loolu lañ travail de maman au travail de papa mooy ndey ju liggéey mooy ngay def nii di ñaq di am mais pas nga topp ci ginnaaw benn sëriñ di ko cogg en tant que góor mu lay may wala loo yaakaar ci moom moom mu toog croiser les bras koy xeexal di ko saagaal xanaa kilifa diine yi sax bañ nañ ko tey am na ci yoo xam ne boo ko waxoon kilifa diine yi ba mu egg ca noom dañ naan jéggal nañ ko mais ñi nga xam ne dañu indiñ amuñ benn dignité amuñu benn fula seen yaay ay saagakat la jur yaa ngi dégg seen yaay ay nit ñu ñàkk keesa lañ jur dañuy nekk si internet du saaga kenn pour kenn parce que dañ koy def pour protéger seen bopp amuñu benn alibi dañuy woo ay nit tey bu soxna ay sa penda waxee dara kenn wala ma gis dëgg wax ko ñu taxaw o ñeneen nit di saaga mais man personnellement ni ma man man man mi sëtu la joor kenn amul fitu taxaw man di saaga wala di saaga ku ma dendal boo ko defee dootoo ko defaat. ah loolu moom doy na waa wante tey ba tey ci clan boobu clan bi lu ko indi mbirum clientèle la wala mbirum xam-xam ngeen daje ci côté mystique ci kaw wala lan moo indi clan boobu. côté mystique ci kaw amul daje fii ñuy wax ñëpp du man du keneen du salbe du keneen ñi ñiy def moom mooy internet yi nga xam ne ñoo yor site ñooy dem filmer kenn mu wax wax ju ëpp wala mu def lu ëpp parce que ndooy baan xam nga farul fenn day liggéey. mais day dégg ci xaas dara wala mu gis xaas def dara mu dem découvrir lan moo tax mu def loolu mu dem wane loolu clairement ne lii lii la lii du du mystique kese xam nga man xaas munu ko koo bañal client bi ko war a woo Amérique man munu maa teree ma woo xaas ku yaakaar ne mën nga mystique kenn ba kenn du ñëw ci moom nax nga sa bopp. parce que boo toogee sa kër ne diw naa ko def bu kenn ñëw ci moom ña koy woo téléphone ndax mën nga leen a jàpp. ndax da ngaa ne fi nga nekk war ngaa mën a toog di téye nit ñi di leen gàllaaj wala yow xam nga ban méthode laa lax lañ jël léegi diw nii diw naa wala diw lii mu def baax na wala faj na kii waaye lépp lu waay wax bu ëllëgee sa wax dina la fekkaat fi nga toog dinga nga dellu vaar xam nga dellu var bi mooy mooy nga def dara ba pare nekkul dëgg ñu génnewaat la ko vaar kay yàgg na ci internet bi mais fii kenn susalul kenn kenn bañalul kenn man li ma may li ma am yàllaa ma ko may keneen mayu ko xaas am na lu muy def yàlla def ko koy nangul day def muy am muy def muy ñàkk am mais du ñu seet loo xam ne mënul nekk nga daan ko dama koy def man impossible wala du ma gis ku ba bay waaja ne nekk phase finale la ma naan ko kaama faj la est-ce que yaa ngi may dégg du ma gis koo xam ne dafa amee problème cœur ba tànk mu jàpp tànkam ma ñëw ko naan kaama lay faj la parce que au moment où ma xool la dinaa xam ni ñuy faj nii ci docteur la war a jëm wala tey ci wàllu mystique moo la jàpp boo mënul tey dugg nit jege ko yaa ngi dégg intérieurement approché ko mystiquement dugg ci xelam benn munoo ko li saxaaral munoo ko seetal pettaaw parce que il faut nga mën a am approche mystique bi nga jege ko booy wax ak moom nga mën a dugg ci biiram pour mën a xam li ci biiram xam lu koy metti parce que man noonu laay liggéey mais doo tëb rek nga ne naa jël pettaaw wala naa jot ndox mi yàlla maye na lu ëpp loolu man fi ma toog laay toog nga fi ma fekk ma toog branché téléphone bi fu ma neex laay toog di seetee loolu moom sunu borom may na ma ko te ñi ma approché ñëpp xam nañ loolu ay nit yoo amal 9 ans ay nit yoo xamal 10 ans nga am ak ñoom te heure bu ñu amee soxla sunu borom may na la boo sekkee ñoom li saxaar loo leen wax ñu ne la tata waxoon nga ma lii de wala këyit bi ma saytaloon na ma sarax bi temps la demal léegi ñu woo la ci léegi borom jot ci. wala lii mayoon nga ma nangam bi wala garab gii lañ sekkoon lii ak laa danga may woowaat reconnaître lool du ma lekk dërëmu nit ci ay dóor bu doon dóor la. ñi fii dóor di gaare cinquante oto di wax naan tey yàlla ak suba nga dee gannaaw suba léeg laa nekkuma ci loolu du ma tëb ni nit salaamaaleykum suba nga dee wala diw day dee du ma def loolu parce que yàlla tam moo yor bunt dee yor bunt dund kon nañu bàyyi boo defee lii da ngay dee wala dee li dee buntu la boo xam ne yàlla moo cay dugal nit ku nekk heure bu ko neex damay gis ñoo xam ne dañ koy def ay ñoom Moustapha Dramé ay diw dana dee lii day dee nañu bàyyi dee gi yàlla moo ko moom yor ko nañu dund dund dund jaamu yàlla lekk ba suur naan ba mandi sol ci yore rafet te bàyyi dee gi di tiital sénégalais yi mais aussi bi ñuy gisee ndax ku ci nekk aussi damay bañ loolu bokk nañ plateau Sen TV damay bañ ci benn niveau nañu bàyyi dee ni doo jël sa bakkan sax teg ko dee jël safara moomale ko sa bopp caabi buntu dee ak safara ak dund ak dee yàlla moo ko moom mais bu du kenn benn domaine boo xam ne noonu lay gisee parce que tout moment ma à moment maa ngi gis keroog mu def benn vidéo def ay révélation naan nit ñi war a tabax fii 40 jours ku ci tabax di nga dee wala ku ci bëgg tabax na ko arrêté fan la ko teg fan la ko yàlla bind ci alxuraan. te da koo gis ci ay géntam. gisul dara gisul tus Moustapha Dramé dafa yeb nit ñi gisul dara ay wax kese la parce que dañu bëgg di wax ay wax su extraordinaire pour nit ñi di leen bàyyi xel. gis nga nekk ci vidéo am tey deux cent mille vues wala am un million de vues amul sens te li ngay wax dara du ci dëgg te yow miy wax sax gëmoo sa bopp wax am yaa ngi dégg mille vues moo ma gën a ma toog am ay cent nangam vues man gis naa yoo xam ne dañuy dugal sen vidéo tey balaa suba ñu am mille deux mille nangam vues te xoolal vues yëpp boo xoolee commentaire yi ay saaga lañ leen di may yow kii daf ñoo sonal kii dafa lakkale kii day nangam kii du waxkatu dëgg pour ñoom vues yi dañoo fang ne la avantage la pour ñoom mais nit ñi ñu ngi leen di bàyyi xel mais ay connerir rek la ñuy wax parce que mënuñu communication boo mënul communication ngalla dafa am noo xamante ne nit bala ngay toog ci internet ñun yàgg nañ ci liggéey plus de dix ans ñi ngi ci ñii ngay gis ñuy wax ni yëpp ñoo leen fi jiitu mais gis nga man damay wax tuuti liggéey lu bari parce que man samay vidéo am na ñoo xam ne au jour le jour dañuy génne ay trois vidéos par jour parce que ngay dem ba wax nga bu demee ba xalaat jeex wax dootul jub parce que sa xel mooy jaxasoo bu sa xel jaxasoo na da ngay def lu ñëw sa xel nga wax nit wax danga ko war a togg ba mu ñor wala nga seet ci la yàlla jegleel ci ci ci ci li nga xam ci xam-xam. am na koo xam ne kilifa la fii ci réew mi xam nga luñ ko laaj soixante-dix-huit golo. golo golo waa pour bëgg dóor rek bëgg dóor. moom it lu mu bëgg bañ ko laaj. soixante-dix-huit golo non non non loolu moo tax ma la na ñoom wax pour bëgg am xam nga tey su ma la laajee loo xam ne lu jafe nit ca la mu bëgg rek lañ koy naxee su ma la laajee lu jafe di nga kii daa mën su ma toogee laaj la gëlëm wala man laaj le benn girafe wala man laaj la leneen di nga ne kii li muy def da koo mën fekk dara moo tax ñenn dañuy wax ay wax te am na ñoo xam ne mën nañ seede samay wax senegal bu ñu amoon cent sëriñ quatre-vingt-dix-neuf yëpp ay fenkat lañ man damay bëgg bu ndooy baan di wax yenn yi sama xol da ciy sedd xam nga lu tax parce que dina mën au moins sauver po ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëgg te léegi mënatuñ xam ku nekk ci dëgg ak ku nekkul ci dëgg parce que dóorkat yi dañoo bari am na koo xam ne man dem naa audience am soxla tribunal am na koo xam ne benn kilifa la dóor xam nga lu mu ko dóoree ne ko demal euh, ba Gabon nga indi fa fas bu am ay nen ba nga juddoo ba tey mës nga dégg fas bu am ay nen boo fa demee ci forêt ba di ko fa gis waa ji dem borom xaalis 45 millions la lekk kooku moo tax ma ne la ci liggéey bi am na ñoo xam ne ay profiteurs lañ ñu ñuy dóor wala kaama defaral la xaalis gis nga ñi nga xam ne ñu ngi jóge Mali ñëw fii bu ñu mënoon duñ fa jóge foofu la ñuy toog féticheurs yi ngay gis li ñuy woote nii fii Sénégal fii mooy dëkku sa aller amul bunt amul palanteer bu doon li ñu mën la dañu fay toog man du ma bàyyi senegal gi ni mu neexee nii. am si ndey am si baay am si mbokk may bàyyi Sénégal di dem Mali ba di fa toog fii laay toog di liggéey ñu xam ma fii ku ñëw xam sama kër ku ma soxla xam ma fi waaye boo déggee la ngay def mënoo ko mooy nga jóge dëkk nga jóge dem beneen dëkk parce que la ngay wax bu dee mënoo ko boo ko fa waxee kenn du la dégg léegi da ngay seet fi nga xam ne fii amul buntu am amul palanteer fu la neex jaar lu la neex wax nga toog ñu jox la micro lu la neex wax ndax boo fayee mu ne wax lu la neex ndax kunkande def na ko fii damay xar géej gi waaye ba mu duggee ca xar géej ga foog naa mujj na caa génn ndax xam naa ne xar géej gu la dikkal ba nga daw génnub réew foog naa wax wax bu rëy amul njariñ bu lu wax rek te mënoo ko bis vaar dina la dab te ba mu demee ba wax ji mënta ne kawlax lañ ko njëkk a dàqee ak ay ay ay xeer kon ñenn ñi nañu am seen dignité tamit dóor marto amul njëriñ tey man su ma ci nekkoon mën naa fi gaare cinquante oto yaa ngi dégg parce léegi dañ naan ñiy seet ñiy liggéey ñiy ñaan dañuy yor ay oto dañu lii am nañu ko ciy def dóor rek dóor li ñuy def ni ñëpp mën nañ ko def mais am na ci loo xam ne boo koy am am ko ci sa ñaqu bopp nga liggéey ko fekk li ngay liggéey mu dëgg la mais dangay topp ay nit di leen laaj ay goloog di leen laaj ay ay ay ay ay ay fas yu am ay nenak di leen di leen def yoo xam ne wala naa la kaama luxusal la xaalis yow man su ma mënee luxus xaalis au lieu ma lay woo di la ko defar du ma ko defal sama bopp te am ko lan moo tax sénégalais du yeewu. waaw loolu aussi naïveté kii sénégalais moo bëgg ku ko nax. waaw dama ne sénégalais moo bëgg ku ko nax man su ma mënee defar valise xaalis dama koy defar samay mbok defal ko sama bopp du ma wooyi ku ma ko defal boo ko mënoon lan moo tax yow nga woo nit pour mu jox la xaalis nga defal ko xaalis soo ko mënee kay defal ko ko rek te may ko ko. sagam yow mën nga defar xaalis jara nga koy laaj dërëm sénégalais ñoo bëgg ku leen nax te nax nañ ci nag ñu bëri yóbbu leen ci ay foore di solal ay jigéen di leen defara ay cheveux naturel ndooy baan wax na ba dee nit ñee nanguwul déglu kàddu yi am na solo soxna ay Aysatu Penda ma fàttaliwaat rek sa numéro dinañ ko gis ci montage bi muy euh, cent 77 376 31 52 soxna ay Aysatu Penda waxtaan bi am na solo kontaan nañ bu baax tamit. aywa maa fi maa ngi tàggu internet internet yëpp laay tàggu di tàggu pratiquement sénégalais de l'extérieur yi parce que macha allah fu ñu toll rek ñu la rafet suñu liggéey ñu ngi ñaanal. kilifa diine kilifa aada ñoom ñëpp ñu ngi ñaanal ñaan bitam tam ñu ngi leen delloo gudd fan geeg wér geeg am wërsëg bu yaatu di ñaan yàlla ñu ñaanal ñu gudd fan doo eh, ñay da nga koy gudd fan waaye bu ko ñaanal rëy boo ko defee bu gudd fan amee lépp loo am rek lu la yàlla dénk ñun ñi mën koo jariñoo ñun loo la ñuy ñaan nañuy ñaanal gudd fan yàlla xiir ñu ci boppam xiir ñu ci njub man saa su ne loolu laay ñaan ku may ñaan rek ñaana ma gudd fan ak yàlla bàyyi mam sam xel ba mañ maa xiir ci dara lu bon ci def ko samay morom Sénégal wala ku dul Sénégal parce que képp ñoo ñuy fréquenté tubaab musulman chrétien ñëpp dañuy fréquenté donc nañu jël ñëpp teg leen au même pied d'égalité ñu xam ne ay doomu aadama la te yàlla doomi aadama la gën fonk donc nañu seetaat sunu biir raxasaat xol yi defaraat jikko yi نويت صوم غد عن أداء فرض رمضني هذه سنتي فارض